à chaud buy toog télé ñëpp di ma dégg ma kaa barke te dëgg la si man mais il a tort lu Sénégalais yi jamono bi président Macky Sall what does it mean Nous wax ko problème lay doon de 2012 à maintenant qui a pris toutes les agences de ce pays là Dougal fa Ben ethnie mu mel ni luy jaxasi Sénégalais. kan moo ko def kan moo ko décidé kan moo jël partout regardez toutes les institutions de ce pays ñëpp sama ay cousin lañ. Li sow jàllam etc c'est dangereux et c'est pas bien c'est lui qui l'a fait c'est la vérité. Ben, ah. ñaareel bi gars ah. ah, il faut pas il faut pas il faut pas jouer à ce jeu. on ne joue pas mais tamit on le dit à tout tête ci mbedd mi dëgg moi je suis pas lâche hein. je suis pas le type qui va être là de foo ma woo ma waxaat 2012 hmm. à 2023 li xew Sénégal APR noo fi def ben ñom ñoy saga nit ñi nday 24 heures sur 24 ñep tek teg seen bët. Hmm. ñëpp xof kenn du wax. deug la ñun ñu am deret am papa am yaay di yek metit 2012 ba léegi nu ak dundu on va être là à nous comporter comme des des des des poltrons soi-disant parce que parce que dafa femme lu ñuy bay on n'a pas dit ça affaire moo réseaux sociaux réseaux sociaux li ci xew nit ñi di saga à gauche à droite conséquence la.